na nga def fay taxi maam. waaw soo sant bu léegi xew-xew boobu nan la demee. waaw affaire yi paa bi mu ngi dëkk à côté Medina. waaw gel mu ngi dëkk Fass. léegi daf ma daan jël tout le temps ma di ko yóbbu Karamo Faye moo gel bi. Mhm. ñu réeré paa bi nag am naa ko baax mais du ma wax ndax sutura. Mhm. bon am naa këram xam naa am na ñaari jabar. Mhm. ba pare. Eh, eh, responsable la. mu ngi yor kàrkaaram nag mais nag des fois daf may woo ne ma di eh, li muy dox laay course mu ko jëlee paas million dem jaar paas jël gel bi di ko yóbbu karamoo fekk pour mu reer yi ci ko xale bi xale bi jigéen bi jël defal ko cristal. lan mooy cristal. mooy mante boo xam ne xale jigéen dañ ko defal paille ci seen affaire waaw. ci seen affaire daal maanaam xam nga rek wax bi maanaam mm-hmm. ci seen sacré yi daal bu mm-hmm. ko defee nag boole ko moom di ko maccaale bi mm-hmm. ñu koy macc nag ba mu yàgg paa bi xam xale bi yoo xale bu jigéen bi moo yoo waaw xale bu jigéen bi yoo te xale bu jigéen bi yoo xam ne ko yow lan la mu ne ma xoolal paa bi ci laa xool paa bi ma ci droite ji benn policier eh, dugg ci benn benn brigade de police def ko déclaration bi ma ñëwee dama tiit bi dugal oto bi ci biir police bi commissariat bi ci commissariat bi waaw léegi bi ma dugal kër ma la lu xew ma ne paa bi de dafa xam xaw ma nag lu xew mais en tout cas loo ko ma gel moo ko def nekk tax xale bu jigéen mooy jëloon cristal bi def ko ci Abdoulaye njaay paa bi ma ci ko paa xam moo tax ma tiit indi paa police mhm. foofu lañu woo doom ji mhm. mu dawal kat katu kat katu papam bi mhm. ñëw police expliqué que ne nag seen papa ni nga ko téye parce que li ko indi fii gel bi moo ko def mais mënuñ la wax li nga xam ne moom la ko def léegi nag ci lañ ma fay man arrêté dix mille la ma naa fay mu yëg sama dix jox ma. fu la fay ak fu ñu jëlee xaalis boobu. taay bi ci poosu paa bi ko jëlee sept cent mille lañ fekk mhm. ma mhm. moo jël sept cent mille yi. Mhm. fay ma sama dix mille. jël xaay bi téye ko ba doom ji ñëw. mu njëkk xaay bi jox doom ji ne ko boo demee ngeen téye seen papa. léegi doom bi bu ñëwee lan moo nekkoon réaction am. non li ma nekk réaction mooy li fi indi papa moo ko jaaxal. waaw li fi indi papaam nag man mënu ko ko man ne ko lii indi sa papa booy bi commencé jooy. est-ce que xamal nañ ko ne kii sa gel la. waaw ndax wan nañ ko ne ko kii eh, papa sa gelu papa la. ba pare xamal nañ ko ne li li fi sa papa it li sa sa papa xam ba ñu indi ko fi. Mhm. gel bi moo ko def ndax cristal la ko defal ci Ablaye Ndiaye bi. màcc mhm. ko paa bi xam. xam na degré bi la degré bi la attanul. Mhm. waaw ñun de taximaan ne yàlla moo ñu musal rek bu ñëwee ni moytu lu bari. affaire bi kañ la amee. Euh, samedi bi passé. samedi bi passé ah. waaw samedi bi passé le combien la. samedi non jàpp ma date bi nag. Oh, ci wetu waaw. léegi gel bi nag moom dañ ko mujj téye wala. non gel bi gars yi. téye nañ ko fa man ma man man fay ma ma dem xaw ma nag mujj nañ ko libéré. wala soit dañ ko fa te continuer. dañ ko téye waaw mais gel bi est xam nga ko. non gel bi moom. Euh, paa paa bi tax ma xam gel bi. Mm-hmm. ndax paa bi laa jëli jaar kër buntu kër gel bi mu xoo gel bi gel bi génn mu yóbbu la ñu reer. waaw ah, loolu doy na waar di. ban jàngat nga si am. xanaa waru kilifa yi ne rek ñu ñu jéem a respecté seen bopp parce que magum jëm am na yoo xam ne war na ko paase. Mhm. jàkka ja doy na la kurus ga doy na la. Mhm. waaye dëkk ci xale jigéen ñi ñu lay na ko dañ ko wax ndax nee nañ paayee ko yor ndax ñooy joxe. Mhm. ñooy jënd gërëfaas yi ñooy faj bu mu gàcce xale yu góor yi nag dañ lay rey dañ lay bëgg a rey te duñ la defal dara ñoom ñoo ko wax seen bopp waaw. yaakaar naa lii wax ni defal nañ ko wal fajri ba xale jigéen naan apa yi yor ñoom soxluñ xale góor yi ndax xale góor dana sonal te kilifa yi dañuy faral du def lu mel lu bëri waaw xam nga bu ak am du bu da nga ci farata di normal jamono bi nag dafa yàqu ba xale yi mantaak pasteek lem ak lu ñu gis lem sax dañ koy def ci lem lem waaw dañ ko ciy def kon affaire bi daal day neex quoi day neex day bi passé sa lu passé samedi dimanche. yem naa benn xale bi jigéen encore. jëlee ko parcelle di ko yóbbu almadi. solo solu sax silib xale bu jigéen bi. billaahi wallaahi ak waxtu solu sax silib moom rek moo nekkoon moom kese moo ne cooto bi ma xool. waaw ma xool rétroviseur bi. gis sàkkaraan bi ma ko soxna si dajale si tànk parce damay liggéey taxi man damay liggéey. mu ne ma xanaa gisoo ni mu feesee te nooy ci. dèjà moom 3000 boobu moo war fay ci la bëggoon man man laal ci affaire bàyyi ko laal affaire parce que xaw affaire ma affaire bu ko def. te xale bi rafet xale bi déggoo lu ma la mbir ma dafa fess comme bong kat loolu kay gën a waaw. c'est vrai affaire yi li ñi gën ñun dafa ëpp li ñoy jooy wax ne taxi man li ñi gën bi nga waxe du baax. Hmm. ndax chaque jour ak hmm. la ñu gis. njàngal la dal ci ñun. Hmm. waaw jërëjëf. ok jërëjëf ok. <laughs>